neexu ci xool nga yeewu naanoog sa doom yendoog moom ba ngoon xëy dégg ay polémique moo def lii moo def saa ngay muñ lo salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Fatou Ndiaye moo fóote naafiq nee na yaayam moo porté plainte yëgul tinul yow yaa njëkk a bind sa sinab mi ngi nii nga ne da ngay dem fa mbaxana doonee benn sa yaay amul droit dem di porté ji plainte nit koo xamante ni tuddul turam yow la tudd sa tur waaw bu saaga ndey amee ak wax lu ñaaw man mii maa saaga sa yaay maa wax lu ñaaw mais du jaara kon sa yaay amul droit lu muy porter jaara jaara kay bu dee porter plainte yow yaa koy porter plainte ndax li mu tudd sa tur sën mais bu dee saaga ndey yi nga wax ne sa yaay ndax neexul ñuy wax sa doom nangam déedéet loolu man mii la du jaara kon man ngeen di porter plainte mais pas jaara yëg nga ko xam nga lépp dangaa xam ne plainte bi day yàq lu bëri ndax dafa am yu war a génnaat yu nekk ci suuf yëgu leen li xew lépp de Sénégalais yi te plainte bi da koy yàq dañ koo woo ñooñu ne ko bàyyil plainte bi bu ko def comprendre nga noonu la demee waaw ñun information yëpp dañ koy jot information yëpp yëpp yëpp yëpp dañ koy jot waaw côté gendarmerie beeg yëpp waaw ñun xam nañ lépp faat ñun xam nañ lépp te rek fii mënoo fee jaay xel kenn wasalaam. maaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi instant bi jaara mi ngi gendarmerie foire depuis 16 heures ak yaayu faatu. léegi nag yaayu faatu man xaw ma lu ban droit la am pour plainte parce que moom jaara waxu ko santu ma ma saaga ko man maa choisir saaga ko xas ko ndax ay doomam comportement bi nu amee te mu neex ko jaara waxul ci moom faatu la tudd faatu nee na plainte wul yaayam moo plainte yaayam yoonam newu ci léegi nag esa bi ñi ngi di lijjanti nee na moom baal na ko mais li nee na moom pour mu mën a retirer plainte bi normalement ah nee na man faaw ma effacé vidéo yi ma defoon affaire yooyu ndax coow li dafa bëri effacé vidéo yi xam nga euh, live wax lu rafet tuuti comprendre nga pour mu mën a bàyyi lépp ma ne ko justice pourtant am na Sénégal parce que jaara santuma masaaga yaayu faatu jaara waxul maqas yaayu faatu jaara tuddul yaayu faatu bu plainte bi am kay faatu Njaay moo war a plainte ndax moom leen cité turam nan waxante dëgg léegi nag nee na moom yii la bëgg te yii lay laaj jot naa jot jot naa téléphone am na ñu ma jot a waxtaanal ñoom dañoo jàpp ne information yi jaara moom a koy jox wala lu jóge ci famille jaara déedéet information yi maa koy amal sama bopp yëg lépp léegi yéen lan ngeen xalaat pour ma def man moom lépp loo xam ne jaara da ciy am jàmm dama koy parce que man jaara laa bëgg mu am jàmm ñu may ko salaam mais yaayu faatu amul benn droit naan nan supprimer vidéo yi wala ñu live wax lu baax ci moom wala wax leneen pour mu mën a jéggal jaara akay à vos claviers jaara daal waxuma dara mais incha allahu rabbi dinaa live ci kanam tuuti bu soobee yàlla jërë ngeen jëf jaara nag ba tey mi ngi gendarmerie foire ok jërë ngeen jëf. maaleykum gars yi salaamaaleykum yaayu faatu jaara mi ngi jéggalu bu fekkente ne yow da nga jàpp ne jaara moo tax Adamo di la saaga ndey mi ngi jéggalu bu fekkee da ngaa jàpp ne jaara moo tax Adamo di say doom mi ngi jéggalu bu fekkee da ngaa jàpp ne problème bi yëpp jaara moo nekk ci ginnaaw. jaara mi ngi lay jéggalu waaw mais dama ko bëgg a leeral fii mu leer mi ngi lay jéggalu de jaara moom moo lay jéggalu à part mais man sama jëmi bopp man Adamo yow ak Fatou Ndiaye yun du jeex parce que tant que maa ngi gis yenn comportement yi di gis yenn bagages yi man duma arrêté di wax ci yow duma arrêté di wax ci Fatou man ak yen nag laa wax waxuma a jaara jaara cadrem mi ngi lay jéggalu moom bu fekkee da nga jàpp ne loolu longu histoire bu yàgg jaara du ci dara kon jaara moom mi ngi jéggalu di jéggalu gendarmerie di jéggalu ñëpp wasalaam live nag dina am ci kanam incha allahu rabbi jërë ngeen jëf